ni inondation kat ñaan ñu ko yalla ñun mais nak heure bu ñëwé bëgg nañ ci duggal suñu loxo motax ñu jëloon suñu budget lu mat 3 millions et quelques jënd ay motopompe mais aussi jënd ay accessoires moy yi àndal motopompe yi muy ay tuyaux de refoulement ak ay tuyaux d'aspiration donc yooyu mairie bi def nak mais nak man lima gëna neex ci opération bi moy ni jeunesse ni xalé Ross Béthio génnee taxaw taxaw seen dëkk ba ndox mi génn dëkk bi loolu moma gëna neex parce que lol dafa am solo di nga am ay moyens yu dul jeex ay millions ay tracteurs ay niveleuse gradeur et tout teg ko doo gis ben nit bu ñew jël ko utiliser pour génnee la ndox donc kooku problème la mais tey yakarna ken ëpp mo moyen parce que moyen nak moy les ressources humaines moy doomu adama yi te amna len ñu ngi ni sama ginaaw ak ñeneen ak ñeneen ñu ngi gisul donc soo ma gis soo ma naka noona nak muy delu ci di talal loxo ñi nga xamanteni ni ñoom ñoo di autorité gouvernementale yi te jaarale ko ci président de la république ngir ñu jappalé leen ci lu jëm ci walu plan d'assainissement assainissement te jàpp ni lolé nak mo mëna a tax jafé jafé yi dal dé wañéku ci gox bi. li état bi comme ni mu koy défé ci dëkk yëpp rek la ko war a defee parce que Ross Béthio en a besoin donc dañu jappalé ci réseau d'assainissement défal ñu des égouts aménagel lu mel non mëna am lénen li

le, chef de service de l'assainissement de Saint-Louis pour nous, nous concocter un plan d'assainissement, un plan d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales de Rosmedio. C'est ce que nous Et je le avant le 25 octobre, Inch'Allah, je vais déplacer avec un technicien en assainissement pour la ville de Rosmeto Nous sommes en Italie. ce weneen wàllu wa nag ki nga xamante ni moom moo di Omar Sow di président commission assainissement ci commune bu Ross Béthio moom mi ngi dellu siwaat ci tolluwaayu liggéey bi te it di rafetlu loolee di xamle ni lépp rek taxawaayu kilifa gi la mu di monsieur le maire. yàlla def na ñaari fan ñetti fan ba tey ma quatrième jour ndox incha population soulagé wu nañu ba fii ñu taxaw ni mooy Ross Béthio centre Ross Béthio ndox mi mu ngi jógee fii rénovation jaare ni ak poste bi jaar ginnaaw côté cimetière yi dem. jaar Njorna évacuer ko sànni ko si àll bi euh, deuxième kii bi mooy zone sanc ba sanc ba marché beeg yëpp mooy jaar ak buntu mairie jaar foofu ñëw sànni ko euh, côté pont ba ñu sànni ko si gannaaw yóbbu ko si dex gi beneen mooy canal Pérémence bi donc donc trois étapes la ñu ko def donc canal bi ñu koy sànni si gannaaw euh, canal bi donc actuellement nii à l' instant où je vous parle yëpp ngi daw te population bi soulagé wu nañu vraiment piste yi leeraat nañ nañ oto yaa ngi daw si biir dëkk bi